waaw. moo doon euh, arbitre combat bi nga xamante ni moo xew léegi. ndeysaan. ñu bëgg koo laaj lan lan. diggante ñoxor ak bébé internet. ak fils d'inter. waaw li ñuy wax ni bo ñu certes waruñu ko wax. parce que dañu dem ba concertation ñu soo koy wax. mais c'est juste pour leeral nit ñi xam ne euh, bi ñu VAR dañu xool ne bon bébé bon euh, internet fils d'internet dafa toog ñu toogee nag léegi ñu joxe victoire.

dañuy am dem directement gis baar bu gisee boo xool vidéo bi gis site bi boo li si nekk li si nekk si site bi li nekk si vidéo bi moom wax. lan ngeen gis si vidéo bi dafa toog wala dafa teg fees. dafa teg fees. dafa fees te xam na ne teg fees site la. kon ni comme noonu noonu quatre appuis nekkee fiche euh, site noonu la teg fees nekkee fiche nekkee nekkee site. léegi lan moo tax site bi bu mu xewee. arrêté wu leen combat bi ndax ngeen bàyyi ñu continuer ba mu dem ardo ngeen doog a arrêté. non am na yoo xam ni xaw ma ne ko si àll nuyu. xam nga ko habitat ñett la habitat ñett la xam nga tant que xaw demul ba am benn arrêt ah mënoo ñëwaat mais ba premier arrêt ñu gisee ne actuellement premier arrêt bi euh, ci diva euh, arbitre bi euh, ba mu amee bi demee ardo mu am fi ñu jóg daj passé naaj bu ñu demee ardo nag ñu constaté wu gis ne actuellement am na litige ah bu ñu constaté wu nag ñu ne léegi nañ dem VAR xam nga VAR moom moo lay nettali film film film donc nous les nous sommes neutres nous sommes là nous sommes là pour le règlement et après les à la lettre donc kenn Les vraiment recours ah, de recours mais bien sûr il may na ko recours recours euh, victoire moo xam bu ko joxul victoire yi moo xam essentiel ñu ñu gis def wax nañ ko waaw. gërëm nañ la jërëjëf.